kontaan naa si aussi mais tamit euh, voilà du ma fixé ay ay objectifs aussi voilà certes certes dugal naa quelques buts saison bi mais euh, je veux marquer plus et surtout aussi tamit dama bëgg tamit euh, apporter lu ma lu ma jëlee fële ma apporter aussi si sélection bi parce que tamit sama objectif aussi te see bokk aussi mooy ñëw lan pour def kan bu baax aussi tamit jël jël kan bi parce que tamit bëgg naa aussi man tamit voilà bind sama histoire aussi voilà si si sélection bi. waaw man moom perso personnellement partagé wu ma parce que man dama ne euh, voilà euh, Sénégal la te champion d'Afrique aussi tamit donc euh, yombul parce que même suñ doon jouer ak ñu ñuy ñu ñuy tuddee outsider yi si man benn match du yomb parce que tamit da ngaa jël kaan te da nga war a confirmer tamit kaan bi nga jël donc match yëpp si man ay derby la parce que que ça soit Gambie ñu ngi wax ay contre Gambie. ay Guinée derby la mais si man Massif ay Massif parce que ñëpp dañuy jouer ne champion champion d'Afrique dañuy jouer donc dañuy ñëw pour wane seen bopp te ñu tamit dañoo ñëw pour conserver suñu titre donc du yomb mais ak qualité ak joueur yu ñu am fii je pense que ni voilà dinañ def daal de notre mieux pour mën a mën a remporter waat CAN bi tamit incha allah nag loolu moo suñu suñu objectif. tamit ñu naan waaw mais xam nga rek comme li ñu wax rek com compétition compétition lañ nekk te certes Gambie c'est pays frontière la ñu te am nañu ay xarit aussi tamit si si dëkk boobu mu ne ne mu ne benn lañu ñu noonu laa ko mën a wax mais en matier de compétition je pense que ni voilà amul amul loolu en matière de compétition moom euh, loo mun a gagné si équipe moom gagné ko donc man moom mentalité boobu la am que ça soit ak fu mu dem man ku may munti joué man damay jàpp ni dama la war dama la gagné voilà man su ma doon joué sax sama frère sax noonu la noonu lay demee donc tamit euh, man je suis wala dañoo ñëw pour conserver suñu titre te pour loolu. léegi dafa commencé contre Niger d' abord parce que match amical la certes mais si ñun c' important aussi nga commencé compétition bi si match genre match amical yooyu donc euh, que ça soit Gambie ak ku mu doon ñun dañoo ñëw pour gagner pour gagner match yi ñëwuñu pour ay machine ni certes football la lépp lépp mën a arriver mais ñun dañuy ñëw pour dañoo ñëw pour jëliwaat euh, coupe bi. <laughs> ah waaw xam nga ñaari sant ñaari sentiment yi je pense que ne yomb nag nekk si boo boteer sax sax a gën a métti parce que euh, maa ngi maa ngi fàttaliku bu ñuy bu ñuy jël bu ñuy bu ñuy bu ñuy jël kan bi maa ngi woon Angleterre man kese nekkoon sama kër après voilà dama damaa yuuxu foofu ba yuuxu ba sonn donc xam nga parce que tamit euh, loolu lañ doon ñaan ñaan yàlla donc tey su ma amee chance bi tamit euh, moo man war ko dund en tant que joueur donc. voilà euh, sant yàlla la te aussi tamit euh, voilà bëgg naa aussi tamit xam nga def euh, def plus que lu ñuy defoon defoon bi passe man tamit bëgg naa tamit voilà bind encore une fois bind sama histoire aussi si sélection bi parce que tamit képp ki football la tamit c'est bien beau tamit nga nekk si dëkk yeneen dëkk di toj championnat yi mais tamit c'est important aussi tamit xam nga ak sa ak sa pays nga def fa quelque chose te man tamit voilà loolu sama. objectif la te ñaan yàlla yàlla yombal ma ko baax. waaw man moom franchement contentement laa si am wax dëgg yàlla parce que voilà du woon lu ma xaaroon mais tamit lu ma lu ma la aussi parce que. képp kuy footballeur tamit yow ñaan nga yàlla euh, daal di jouer commission bu mel ni ak sa pays donc voilà moo taxoon na ma doon reyante voilà doon def euh, lu ma mun pour pour mun a bokk si sélection bi donc contentement la am ak euh, ak tout famille yëpp. Hmm. waaw man loolu man moom benn benn benn motivation si man. parce que aussi tamit xam nga rek instant dañoo nekk si monde boo xam léegi réseaux sociaux yi tamit dafa nekk loo xam ne nit ñi dinañ si mën a exprimer wu seen xalaat voilà et si man tamit euh, nit ñi nag lu ñuy wax rafet na trop neex naa dégg mais voilà man man ma man maa waroon a continuer nekk si lance bu ma nekk gën a liggéey parce que tey je pense que nii dama mës a jàpp ni liggéey moo lay may li nga li nga bëgg voilà donc du ay wax seet Sénégalais yi nag dañoo baax voilà parce que dañuy seetaan dañu lay suivre et tout donc man awma seen fay si côté boobu mais euh, je pense que tamit man maa woon def sama wareef mooy la nekk si terrain bi def lu ma après nag euh, décision coach la te c'est pas facile aussi tamit nag man ñaan moo ñaan moo yàlla aussi nekk si position coach bi parce que voilà Sénégal bëri na ay joueurs am qualité yoo xam ne tey mérité nañu euh, bokk si bokk bokk si bokk si bokk si liste bi voilà donc sant yàlla ba man ma mën a bokk si te war a défendre sama pays commission bu mag boo donc alhamdulilah daal loolu laa mën a wax. waaw man moom kon li may wax man moom franchement euh, ñëw ma fii pour concurrence quoi ñëw ma fii pour euh, pour xëccu place voilà man dama ñëw pour euh, pour pour pour apporter plus équipe bi. waaw ah, parce que tamit euh, seet sama performance moo tax mu ñëw waaye tamit euh, voilà bëgg mu fi nekk comme genre benn benn benn benn benn benn figurant voilà tey pare naa pour tey coach bi ak fépp fu ma soxle man pare naa pour na défendre sama pays nag sama pays tey jaral jaral na ma ko donc voilà con concurrence bi c'est mun naa ne si sama si man la d'abord man sama bopp laa mos a jàpp ni voilà la am ak concurrence mais voilà mais fii dañoo ñëw sélection lañ ñëw te dañoo war a défendre tamit suñu trophée donc euh, voilà j'espère daan en ñu ñëpp dinañ nekk si forme parce que euh, CAN bi du onze rek moo koy joué donc 27 jours la xam tey dañoo pare pour mun a mun a défendre pays bi et j'espère tamit euh, yàlla dinañu jàppale bu baax ba ba ba ba coupe bi nag moo si ëpp solo. Bah, en, en, tout cas, je suis poly, poly, poly, polyvolant là, quoi, parce que je suis chez position, position bonnet, et ça ni euh, certes, ça m'a machine, je comme sur côté, mais aussi mon jouer comme attaque. Voilà, en tout cas, man, dal, en tant qu'attaquant, je suis moom pare euh, pour, tous les, pour tous les positions. Voilà, après, nak, euh, voilà, coach bi nak mooy xol voilà fan la mëna utiliser là en tout cas pare paré pour apporter équipe waaw bien franchement ici moom fii moom voilà fii moom euh, beneen affaire la quoi parce que dafa neex trop xam nga nag dafa bëri ay gars yoo xam ni dañoo dañoo baax te man moom depuis sama sama première sélection ba léegi xam nga su fi ñëwee moom wax da yàlla du mu fi du ma bëgg ñibbi dama bëgg ñibbi parce que xam am na ambiance bu fi am amul feneen foofu laa ko mën a xeet ay gars yoo xam ne dañoo dañoo dañoo nekk ay professionnels yoo xam ni voilà dañuy. suñ ñëwee dañuy dañuy dañuy kaf di mais su heure liggéey jotee moom moom moom dañuy liggéey donc man moom voilà content la contentement daal la si am daal encore euh, boo ko équipe ak euh, ak gars yi mel ne. waaw lu may xaas ñoom mooy euh, nañu taxaw équipe bi xam nga nañu nañu ñaanal bu baax a baax baax te te nañu nañu nañu parce que tamit dañ leen dañ leen soxla aussi parce que. on seet ñooy dugg si terrain mais c' est des c' est des yoo xam ni ñooy ñooy pare pour jàppale équipe bi donc voilà nañu ñaan bu baax te nañu taxaw équipe bi daal te nekk nekk suñu ginnaaw nañu supporter.